militants yi ak militantes yi fi nekk yépp accepté naa seen proposition pour jël candidat nekk candidat conseil départemental dinaa ko gagné incha allah nii ngeen ma investir ni naa leen promettre pour jël conseil département bi tegal ko seen loxo ndax ku ma xëccool nga ñàkk te ba mu dugg si géew bi ñëpp daw bàyyi maam ndax may seen bàyyi kon ñëw naa. maa ngi leen di sant bu baax di jiital sama cant aussi ci mbooleem responsable yu jóge ci commune àll bi ku ne xam na ne guddi na mbooleem commune yi kenn ku nekk yabal nga fi ñaari ndaw mbooleem responsable kenn ku nekk yabal nga fi ñaari ndaw muy réunion boo xamante ni pour le département la waxtaan ak ñoom saafonteeg ñoom fàttali leen ñaax leen ñu gën a taxawaas pour li ñu xamante moom la ñu jëm muy élection le 23 janvier 2022 mu di loo xam ni kenn xamutoon date bi ndax depuis ñetti at ak mi si ginnaaw élection yi war nañ koo def ba defuñu ko woon ku ñu xam na ni bi mu ñëwee ensemble man mii di wax yow def na amendement pour ñu def élection yi ci mois de décembre ngir mu bañ a génn 2021 ndax li ko warloon mooy. nguur gi si boppam dafa waxoon ne bu ñu tëggee élection yi 2022 élection législative duñ koy dàq ba 2024 ndax mun ñu def ñaari élection ñun bi ñu xamee loolu ñu def amendement mais ku ne xam na ne nguur gi lenn seen lenn leeru maa ngi sant aussi ñi nga xam dañoo bokkul APR te démissionné ñëw fekk suñu tey ci bokk gis-gis te xam ni ab tàmbali la mais képp ku nekk APR te nekk si département Mbacké pare nga pour bàyyi APR ndax amul njariñ sàmmul kàddoom gëmul sëñ Tuuba kon jàpp naa ni fii amuñu ku ñuy bëreel ndax bu ma dee yëkki nii ñi fi des ay yaaw jàll ñu ne yeneen candidat yi kon du ma seen moroom di gërëm bu baax la président bokk gis-gis ma président Pape Diop biig bi may ñëw rek waxtaan nañu si saafant nañu si muy leaderu parti bi ma nekk secrétaire national nekk membre comité directeur nekk secrétaire exécutif chargé de jeunes yi maanaam mboolem ku nekk si parti bi nga nekk député nga nekk conseil municipal nga nekk conseil département man maay si kilifa loolu yàlla dogal kon loolu cër bu am cër bu rëy la boo xam ne parti bi ñoo ma ko dénk ma nekk vice président commission de loi bu assemblée nationale mboolem loi yi ñu tënk assemblée commission bi ko jiite man vice président laa si nekk tamit. membre conseil administration Assane Asalem kooku dafa am loo xamante ni xeex la boo xamante ni doomi Touba moo ko xeex seen doom moo ko xeex seen frère moo ko xeex ba àgg foofu noonu xeex boobu nag yéen laa koy gërëmee ndax tey bu ma ñimee yéen nekk sama ginnaaw gisuma lu ma tax a ragal ndax lii fi nekk jëlu ko fi yomb na lool te fii lay tàmbalee te bu ma ko war na koo gëm ndax démb ba nelawul ndax ku ne xam na ni lépp lu ñuy làq si dëkk bi. di ko nëbbu di ko luubal di wax askan lu dul dëgg dinaa tax a génn ko wax askan lu dëgg wax liñ ko war a defee wax fi mu jaar wax yoon wi ba nga xamante ne askan dana yeewu loolu moo tax ñu nommé ma tey ren ma nekk le meilleur député de l'Assemblée nationale ñu war maa jox raaya boobu le 10 euh, si le 10 juin bii di ñëw ni incha allah kon ndam loolu dama ko delloo Serigne Touba ndax ndam Serigne Touba kon loolu tamit il faut que askan wi xam loolu ren la man lan kooku sant la sant Serigne Touba la ndax Serigne Mountakha moo ma xamal mercredi ba le passé ci sama kanamu waajur mu ne ma fa nga nekk man nga fa nekkal Serigne Touba nga fa nekkal te ku am pëstéef nga ku doomu Serigne Touba waxee ko sëb Serigne Touba ku am pëstéef nga nekk Serigne Touba kooku yaakaar naa ni war ngaa mën a sant yàlla na ma doom nekkuma li nu war a wax nag bari muy parti bi muy ci allée yi muy ci dëkk bi muy ci réew mi waaye leen lu nekk dañ si jël tuuti rek pour tënk tàmbalee ko suñu parti bi ñu bokk la bokk gis-gis ku ne xam na ne bokk gis-gis bokk na si porte bi nga xamee si département yi moo fi ëpp doole ndax jàpp naa ni am na fi ñetti député am fi ay conseil département te ku ne xam na ni bokk gis-gis tamit actif ak leadership am ci département kenn mënu koo nattam ba tax na ñi nga xamante dañoo créé woon bokk gis-gis la membre fondateur yi te gàllam mi wax ko di ñaanal baytaala mbuub di ñaanal Iba Guèye ñoom ñëpp tey ñu nekkoon si bokk gis-gis. ñu créé ko ba ñu ñëpp tey ñëw ñu yaatal ba ñoom ñëpp ñu dugg si kon xam naa ni boo ko gis-gis ba léegi may wax ak yow boo ko gis-gis fa mu taxawoon fokk gën a raw fa taxaw ndax bis bu yàlla sàkk ñuy am ay nit yu bees yoo xam ngi ñëw am na loo xam ne aussi il faut que ma wax ko ñu bañ ko bàyyi xel ñu bàyyi xel bu baax xam ne dana ñëw am na ñu bokk suñu parti ñu wax ne dañoo bokk suñu parti te ministre de l'Intérieur xamal ma ni ma am na ñu bokk sa parti yow ñu ma yebal sa biir pour ñu xeex la pour yàq sa image yàq parce bi département Mbacké loolu am na wax na ma ko ci assemblée nationale kon bu ngeen gisee ay nit fan yii di wax bokk gis-gis di wax attaqué bokk gis-gis ñoo ñooñu appel bu nëbbu la dañ leen a yabal te ba leen a déglu jox leen ay moyens jox leen ay moyens loolu te il faut que mu leer xam ni bokk gis-gis man maay coordinateur bi ñi fi nekk ànd ak man ay gor lañu samp na may seen candidat nekk député te toogal fi peuple bi toogal fi askan wi fas yéene maanaam remplir li nga xamante ni mooy conditions yi nga xam ne moom lu ma ci man def naa ko si benn doomu aadama laa loo xamante nag lu xew fii ci parti bi maa génn sama mooy bopp kenn joxuma ko lu xew si askan wi maa génn sama mooy bopp kenn joxuma parti bi muy dugg si parti fekk na ma yor alal bi ma duggee si parti teewul maanaam li may continuer di ko def fekk na maanaam la ma mënoon sax mënatuma ko mais dama ànd sama ngor sama gëm-gëm lépp loo xamante ni war naa ko def def naa ko bis bu xamante ni nag def bilan jot na bi ma falee assemblée nationale ba léegi ci lu ma investir ci département bi dinaa ko génne pour wax ni lii laa def mais mën naa sënkal léegi lenn loo xamante ni ñett yoon la 72 millions francs CFA muy juróom-ñaar fukki millions ak ñaar def naa ko ci ci ci ci Covid bi ci sama xaalis bopp ci 1 million de masques yi ma joxe joxe naa 5 millions sur gouverneur joxe naa 3 millions 500 fii nga xamante ni mooy ci Mbàkke joxe 1 million 500 à l'ANSAR ci ay matériel bokk la ñi nga xam ne laa jënd ceeb yi ak diw yi di ko seddale askan wi loolu sama xaalis bopp la mën na téeméeri million kon kooku yaakaar naa ni bu yaakaaree nii kenn yaakaar ne alal ji ma yor nit moo ko koy jox waxuloo dëgg kon askan wi nga xamante ni ñoom laa promettre woon digul leen dama la waxoon def naa sax lu ëpp la nga xam moom laa waxoon mais loolu bilan lay doon boo xamante ne bu ñu àggee ci élection député te yàlla dogal mu yàlla bàyyi ñu war a laajaat daan wax ne ban ma falee lii laa fi def ci ndox lii laa fi def ci courant lii laa fi def tamit ci li nga xam moo jëm ci mbirum social ñii laa jàppale ñii laa dugal ci jumaa yi ak jàkka yi ak li nga xamante ni mooy population bi ak école yi kon loolu incha allah si kanam raw li bët di wax rek si mbirum assemblée nationale assemblée nationale ku ne xam na ni assemblée bii nga xamante ne ñu nekk bari na loo xamante ni am na fa loo xamante ni lu bari war nit ñi war koo xam mooy amul transparence bu ñu watee bis duñ ko bañ na ko ba li nga xamante ni moom nga dégg ñuy wax barki démo mbaay muy 59 milliards yu ñu jël jënd ko avion présidentiel sax dañ koo dëxëñ ci assemblée nationale ci ministre force armée député yi woote ko te xamuñu ko. moo tax démb ci plénière bi ma wax ministre de finance ma ne ko 2018 2019 ba 2020 amuloo benn këyit boo mën a génne wax ni député yi wat nañ maanaam benn loi wala benn projet pour maanaam jox Macky mu jënd alal mu jënd avion amul. ci 2020 2021 ci la ñu yokk bés bi en 64 milliards francs CFA pour que wax ne dañ see war a jënd maanaam benn avion militaire équipé ko avion militaire nag bu ñu ko waxee pour ñu militaire ñoo tax mais waxuñu président de la république loolu moo waral député yi ni kon armée bi ñoom ñooy suñu kaaraange nañu wote léegi loolu sans débat moo tax ministre force armée bu ma sax ñu assemblée nationale kenn du ko wote kenn du ko contre ndax armée bi moo tax ñuy def loolu nekkati ñoom bu ñu bëggee sàcc. wala ñu bëgg luubal wala ñu bëgg maanaam ndax sax xalañ àllu réew mi dañ koy jaarale ci force armée mais loolu wax naa ko démb dana fi jeex ministère bu dikkatee dinaa jël engagement dana càmbar bis seen xool ko xoolaat ko ba nga xamante ni dana xam liñ si dugal ak liñ du dugal bañ na ko sax ba moom ministre de finance xam naa ni dinaa consulter ak samay avocat ñu jéem ko traduire a la justice ndax dégg ngeen mu lépp yoo xam ne di défense la ndax ku ne xam na ni wax na chiffre bi exact bi nga xamante ni moom la avion bi jar te loolu loi da ko tere yaakaar naa loolu tamit il faut que ñu xool nan lañ koy defee ba nga xamante ni lu mel noonu déetu déetu ñu daal ndax ñu ñi di wax yow wote ko xam nañu ko mais comme moom mooy ministre des finances yore ko bi ñu ko jaxaselee jaxase ko si biir moom mu di la daal di génne li nga xamante ni secret la boo xamante ni dañ ko nëbboon nga xam kenn wuru koo xam moom mu daal di koy wax pour ñëpp man ko kooku yoon def na aussi liñ si war a ko si document yi am na avion bi gis naa ko mi ngi Perpignan loolu daan si waxaat bu wax jotee incha leen li nga xamante ni moo jëm ci mbirum alliés yi alliés yi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax mbooleem parti allié bu nekk fii tàmbale ko si PDS li nga xamante ni mooy Pastef waa kër Malick Gakou grand parti waa kër Khalifa Sall waa kër euh, Mamadou Diop Decroix waa kër Mamadou Lamine Diallo waa kër Cheikh Bamba Dièye waa kër Khalifa ñoom ñëpp. ñëw nañu seet si ma seeni kilifa yi si kaw jox nañ leen ndigal ñu fas yéene créer une grande coalition une grande coalition boo xamante ni pour jël département Mbacké jël commune u Mbacké jël beneen commune si àll bi kon nañu xam ni élection yi ñuy jëm ak coalition la ji demee incha allah coalition yi nga xamante ni moom laa leen fi yëpp seeni kilifa joxe nan ndigal pour que ñu ànd def benn coalition bu mag beneen bi nga xam mooy mburoog soow bi mën naa sax bañ waaye ñoom nañu xam ni la ñu amoon 2019 ki leen ko mayoon mi ngi nii nanguwaat na ko te ñoom bu ma leen ko waxee ndax fii laa toogoon jiite woon yëf yi yëkkat sama mooy def si ànd ak ñoom jox ko li mu yore ba mu ne moo jël deuxième dinaa ko rocc ba mu mel ni sirop bu dindi si ndox delloo ko maanaam fa ma nekkoon ba pare nekk kaani ci biir mburoog soow bi ba nga xamante ni ku ko lekk da ngay wàcc di waxaat ni nga xamante ni mooy Touba ni ma ko waxee Serigne Mountakha dama am pas-pas am yéene bu rafet ngir bëgg koo jàppale ci commune Touba am programme aussi ndax Touba fi may wax ak yow budget bi war naa ëpp fukki milliards ak juróom bu buñ ko jaar la yoon xool yan miis la ñuy jaar pour que mën a sàmm dëkk bi mën a aar dëkk bi muy sécurité éclairage assainissement gën a fi mbalit mu mi nga xamante ne dafa nekk si biir dëkk bi yooyu yëpp ngir jàppale sëñ bi ci liggéey ba tax na nee naa ko boo ma tànnee day dinaa nekk maanaam pour jiite mairie bu Touba comme sëriñ bi mooy tànn bëgg naa ne nii maire si candidat dans le maire de Touba si si candidat daal le conseil département mais maire de Touba nag sëriñ bi moo koy joxe te nee naa ko na ma ko jox loolu moom dama bëgg mu leer comme dañuy joxe rek sëriñ bee joxe te wax naa ko li ma bëgg ak sama amis ak sama yéene te mën naa ko si liggéeyal pour mu jox man nag ki fi nekk dafay layaam layaame rek kenn doon fa nekk tànkal kon xale yi maa ngi leen di dollee am ci yéen confiance xale yi maa ngi leen di dollee sant di doolee sant aussi jigéen ñi bu baax a baax leen gërëm si turu soxna maam Jaara mi nga xamante ni gor la ba muy metti ñu àndoon lu nekk mu gis ko lu nekk mu dégg ko mu ànd ak ñoom ci nekk jigéen ñi fi nekk ñëpp pour que ñu mën a àndandoo sampandoo pour yi ñu jëm ñoom ñu gis seen bopp man taxul may laaj mais ñoom ñoo tax ndax xale yii laa bëgg tey ñu bokk ci conseil départemental ak jigéen ñi am ay postes responsables pour jàppale seen njaboot loolu moo tax may laaj conseil jël secrétaire général boo xamante ni bu jàngalee doon boo xamante si nit ñi laa ko jëlee pour ñu ne fii élèves yi étudiants yi nekk si àll bi mooy Saint-Louis Dakar Bambey ñu jël ay subvention jàppale seen li nga xam seen taxawaay ndax jàpp naa ni étudiants yooyu taxawaay bi leen communes yi war a taxaw des na kon dañ leen war a jàppale ndax fan nekk dañoo sonn loolu jël naa engagement bu ma yàlla mayee ma jël conseil département bi étudiants yi fu ñu nekk dana lay wutal ay logement ba nga xamante ni seen jàng doon ko mën a jàng jàng tranquillement ba nga xamante ne benn jafe-jafe benn xool pare naa aussi mboolem commune yi ñu def fa ay tournée ci programme à la le 5 bii di ñëw ci mois de juin 5 juin commune bu nekk na nga préparer wax ni bis sàngam bëgg nga ñoo recevoir ñu def délégation pour wër communes yi commune par commune bu ñëwee xool nga fa jiitee ñu wax ko mu continuer ànd ak ñoom war a ànd ci coalition. ba nga xamante ni tey bu ñu si àggee ci liste si pour ñu defar ko dafay yomb tan xam ni li ñuy liggéey nag ci lu baax am na ñu ni si ñun lañu bokk ñu ngi liggéey lu bon pour yàq waaye bu leen déglu bu leen gis bu leen xool li leen ñor mooy département bi li leen ñor mooy seen leader te ñu ngi si adhéré si ginnaaw président Pape Diop mi nga xam mooy suñu kilifa maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sa vraiment merci jërëjëf